yow lan mooy sa positionnement dans l' opposition xam nga tey. Mhm. on sait que Pastef ira aux élections parce que am na parrainage. Mhm. taxawu Dakar wallu APR ñii moo ñu wóor na ñoom c' est des forces politiques qui vont être présentes. Mhm. Euh, ñan ñooy forces politiques yi qui vont être présentes à l' élection. ñan ñooy forces politiques bu ñu ñii am parrainage déjà. mooy ñan muy euh, muy muy APR. bu ko neexee mu def forme de parrainage bu nekk. Euh, bu ñu demee ci parrainage parlementaire bi mm-hmm. euh, Pastef taxawu Dakar euh, wallu mm-hmm. dinañu am seeni seeni parrainage mm-hmm. léegi mu des yéen ñi war a xëccoo la parrainage citoyen la majorité voilà donc ñeneen ñi ñëpp wóoruñu ne ndax dinañu am parrainage am ndax dinañu présent ndax force yooyu dina présent yow léegi yow ci opposition bi nan ngay positionné wu doo li vous n'êtes pas le chef de l'opposition le chef de l'opposition c'est Idrissa Seck même boo ko ko bañalee <laughs> le chef incontestable de l'opposition sénégalaise l'histoire <laughs> retiendra que Idrissa Seck à l'élection de s'est placé deuxième avec derrière Macky il rejoint dans l'opposition il réoccupe la la place de chef de l'opposition xanaa du man Abdourahmane Diouf ak man Abdourahmane Diouf waaye ak ku mu neex ak ku mu nakari mani <laughs> du man Abdourahmane Diouf. non dama lay rappeler parce que j'ai l'impression ah, que da nga am am da nga xaw a amnésique tuuti. dama ni la fàtte nga ne bokk nga ci ñi liggéey résultat boobu. ah voilà dama ne la 20 pour cent yooyu nag dama ci saf sàpp de 20 <laughs> pour cent yooyu. non dama ni la man xanaa du man Abdourahmane Diouf. non yaa defar programme bi. dama ni la vingt pour cent ah. yooyu dama ci saf sàpp ah. ku mu neex ak ku mu naqari. waaye tamit da nga Idrissa dafa saf sàpp ci yow. Idrissa Seck dafa saf sàpp ci yow. non tey grand bi moom lan grand bi moom wax ci moom am na benn <laughs> éloquence euh, benn euh, caaj bu ñu la xamee ci Idrissa Seck nga ko jëlee. c'est la formation de Idrissa Seck loolu aussi da nga ko koy nangu. tey moom tey moom voilà Idrissa ci yow. le parricide loolu dañ la koy accepter mais mais. non moi je commets pas de ah, parricide. ah non xam nga man may mun a. nangootuloo leadership am. c'est normal boobu je parle ici entre guillemets. non non man xam nga gis nga bu dee suivre nga sama trajectoire ah. politique. man peut-être que nit ñi xamaguñ ma ci yu bari. parce que man maa mettrul en scène sama bopp comme ni homme politique yi di defee. parce que dama am benn côté doomu daara te dafa am ñu ma koy fàttali souvent ne ma sa politique des fois mën na jafe parce que politique dafa ànd ak bajantu politique dafa ànd ak tiitaru. politique dafa ànd ak wane wu tiitaruwuloo kan man mii yow fi nga toog fii yaa ngi wax di bajantu di tiitaru yow de boo doon tiitaru moom du baax mais mu ne man yow yaa ngi wax sa carrière nga dugg non mais Abdourahmane yow da tiitar mais mu ne man waneegu ma nga bëri tiitar yow fi nga toog fii rek yaa ngi wax di luminer da nga bëri tiitar yow. je raconte que ay quelques faits. te yi man bëriwuma tiitar. man ma dama am benn yar boo xam ne dama am benn yaru façon doomu daara boo xam ne dama am. une dose de timidité ak de retenue yow sax xam nga li ma la gis mënu sax xool <laughs> loolu yàlla moo ko def ci man moo tax man du may faral di bajantu di wan sama bopp gis nga may mun na man kuy nit kuy tranché la nit kuy jël ay responsabilité la raconté nga ko sànq Idrissa Seck lu nekk dund nañ ko ci élection 2019 bi ma saf ci sàpp te du programme bi rek mais jarul may duggaat ci détails yi te li ma ci def nag regretté wu ma ci dara parce que yéene woon naa ko ko ba muy def. non réew mi fondement nga fa woon. mais li ma bëgg li ma bëgg nit ñi xam le 7 wala 8 mars sa plateau yow laa ñëw toog ne la juriste la citoyen sénégalais la conseil constitutionnel joxe na résultat ñaar moo ci des pour candidat yi te waxuma woon rek pour Idrissa Seck pour candidat yëpp laa wax da def un recours judiciaire mënoo def recours judiciaire nga def un recours populaire recours judiciaire mooy d'accord ma dem naa ci juge bi est-ce que candidat yi demoon nañ ci juge bi. demuñu dañoo kenn demul ci juge conseil constitutionnel. bu ci loolu desul nga génn ci mbedd bi ne man d'accord ma taal ay pneu casse et cetera et cetera. guddi ga guddi élection ba. yow yaa génn. waaw na ne na nit ñi toog seen kër. jël samay responsabilité foofu laa jëm ak yow. man je suis un homme qui tranche qui prend ses responsabilités. bu may jël sama décision sama loxo du trembler. jour boobu j'ai fait une conférence à deux heures du matin et j'ai pas pu voir mon candidat j'étais le porte-parole du candidat et j'ai pas vu le candidat le jour de l'élection ba deux heures du matin et j'ai pris ma responsabilité ma ne bu recours judiciaire amul recours populaire amul xale yi nañu toog seen kër les versions sonores sont là tu t'en rappelles mais ba ma paree ci loolu yemuma ci bi ñu ñëwee fii conseil constitutionnel joxe décision wam mu am ñuy xaw a guróoma naat dinañ nangu du ñu nangu maa taxaw ne la je reconnais les résultats de l'élection présidentielle Macky Sall gagné na Macky Sall gagné na non pas parce que Boun Abdallah Dionne moo ko wax parce que ba ko Boun Abdallah Dionne waxee gis nga réaction ba ma am RTS mais ba ko conseil constitutionnel waxee candidat yi réagir ñu dama ko fa taxawal li ma ci dund man maa ko xam yow xamoo ko mais je suis un homme qui prend ses ñëw réew mi en loolu histoire Sénégal ñu bëri xamuñu ko Macky Sall gagné Idrissa Seck jël cinquième muy déception bu metti ñu nekk ay xale ñëw mais réew mi daf xaw na tas ñaar ñenn ñi ancien PDS ne ñoom Ablaye Wade la ñuy jàppale loolu c'est de l'histoire récente yow dund nga ko teg pression candidat bi pour ñu dem jàppale Ablaye Wade ñun ñi fa nekkoon les plus jeunes surtout ay Thierno Bocoum ay man ay Déthié ay Ousmane Thiongaan maa ngi leen di nuyu mais ñu ne Idrissa Seck na sàmmoo ak kàddoom jàppale président Macky Sall gis nga jour boobu xam nga ma nekkoon porte parole du candidat man maa dem RFM bi may dem yëgluwuma tàggoowuma dama jël dajale toutes les déclarations de sa Seck de septembre 2011 à février 2012 fépp fu mu wax ne moom candidat de l'opposition le mieux placé moom lay jàppale ma téye ko ba mu woon ma ne am naa preuve ma xam ne lii bu ma ci waxee kenn du ma daan maa dem RFM ba may dem kenn tàgguwuma tàgguwuma kenn ne reconnaître nañ victoire bi ñun candidat Idrissa Seck Macky Sall lay jàppale gis nga wax boobu ba tey fi may toog nii daf may topp. c'est une erreur. te bu doon maay Idrissa Seck dama lay sax no seen waaw ah peut lu tax dàquma. c'est ah, une erreur. parce que j'étais man moom laa bokkul ci discipline de parti. non loolu mooy discipline de parti. le responsable moral c'est Idrissa non non non. waroo ko jiitu ci mbaram lu tax dàquñu ma. ah dàquñu la parce que parce que bu ñuy ànd dañuy ànd àndu nawle dañu ànd àndu nawle ku nekk da am sa compétence ku nekk da am sa famille ku nekk dafa am loo xam te ñun dafa am lu ñu bàyyi woon pour le candidat ñu taxaw sàmmoonte loolu ba mu jot man j'étais le porte-parole du candidat bu man masuma wax dem laaj ko Idrissa tu sais Idrissa def na ak moom huit ans de porte-parole du candidat benn émission laa masa dem mu ne ma boo demee waxal lii waxal lii waxal lii. man je mais, prends mais, mes tout ça pour me dire quoi donc tout ça c'est pour dire pour, que moi pour, je suis pour me un dire quoi? tout ça c'est pour dire que moi je suis un homme qui tranche je suis li ngay wax ay positionnement de l'opposition man je ne me positionne pas par rapport aux autres. je me positionne mais jamais c'est que de tout ma vie. mu ci jàng mu ci liggéey mu ci leneen. je ne me positionne pas par rapport dama am sama yoon. li nga wax nii dafa am lu ma ci dund. Mhm. dama la koy d'accordal. Mhm. à des moments clés tu as eu le tu as je eu tranche. le courage. tout à fait voilà et de prendre des positions yoo xam ne elles sont plausibles. te bu ma nekkee président nag noonu lay. tranché nag. mais bu ñu ñëwee ci positionnement électoral là on est dans l'arithmétique là on est dans l'électoral mm-hmm. parce que tey ji tey les les plus grandes les grandes forces de l'opposition Pastef la PUR Taxawu Dakar PDS muy pour ñi gën a représenter noo ko xamee pour ñi gën a élection yi laa la la ban élection ma ne bu ñu demee ci présidentielle non soit très rigoureuse parce que am naa lu ma lay tontu. bu ñu demee ci bu ñu duggee ci présidentielle bu ñu duggee ci législative. mais noo ah. xam ñooñu ngay wax. xaaral rek ma noo xamee noo noo xamee may may ma rek bu ñu nañ dem ci présidentielle. PUR hmm. été à deux deux cent mille euh, électeurs. c'était il y a quatre ans. waaw d'accord ba tey rek. Hmm. mais donc loolu mooy baromètre bi. waaw bu ñu demee ci euh, ci ci Pastef mu ngi am euh, six cent mille. tout à fait. ah. Mhm. Euh, pour ñi nga xam ne bu ñu demee ci Idrissa sec mhm. mu ngi am euh, vingt pour cent. Mhm. Euh, neuf cent mille quelque chose comme ça. bu ñu ñëwee ci législative yi. taxawu Dakar am na plus de dix députés. PDS am na am na vingt et un vingt et un députés. du pur. am na trois quatre députés. tout à fait euh, kële nu mu tudd euh, ah, Pastef. am na Pastef am na une vingtaine de députés. Wow. donc ñooñu mun nañu jàpp ne aujourd'hui hmm. entre deux mille dix neuf ak deux mille vingt deux de manière arithmétique. Hmm. ce sont les principale force de l'opposition mm après nag yéen ngeen doog a ñëw hmm. euh, même Bougane bu aux au dernière locale sa coalition ramassé na deux cent mille voix même bu fekkee ne euh, contrôlé collectivité locale yu yu yu important mais moo tax ma ne la sa positionnement nan ngay def tey pour surclasser ñooñu. Mm-hmm. est-ce que nangu nga ne euh, force yooyu ñoo nekk sa kanam. waa léegi ñu commencé ci présidentielle 2019 ki amoon vingt pour cent 2019 ñaata la amoon 2012. 7 pour cent voilà ki amoon quinze pour cent jël troisième 2019 ñaata la amoon moom 2012. non bokkul nekku fa woon. nekku fa woon waaw du dafa ñëw am 15 pour cent. nekku fa woon waaw léegi loolu daf ñu jomb ñun. mais mais nekkoon na député. plus fort avec 30 000 voix. waaw dama ni la waa ñun suñu plus fort reste mille 000 voix la. ah loolu du débat bi xam nga lan la cette analyse figée là moom laa dul d' accord te yéen journalistes yi foofu ngeen ñu war a aider yéen. lu tax ñu leen di aider c'est les Sénégalais qui doivent gis ngeen yow ku mel ni yow ku mel ni yow ak yeneen journalistes. vous risquez de nous faire faire une nouvelle campagne électorale. sur la base du naming c'est-à-dire ci ay tur diw moo nekkoon premier ministre diw moo nekkoon ministre de l'économie ngeen jël tur yooyu di ko imposer sénégalais yi di ci def ay éditoriaux di ci def ay émission alors que élection ay tour la des données électorales déedéet élection présidentielle bi du loolu. ce sont des données électorales mais may mun a bu doon loolu. et un vécu électoral arithmétique boo xam ne ay forces politiques. bu doon loolu am nañu ko te yéen amu leen ko. loolu aussi il faut ngeen nangu réalité boobu mais loolu. kuy dem première élection présidentielle amoo benn chance parce que mosoo dem élection présidentielle xam nga li nga wax ni lan lay nurul li xale yi di kaas da am master am mention très bien ki la bëgg a recruter naan laan il faut <laughs> il faut master plus cinq ans d' expérience alors que yow mosoo am expérience mosoo stage mais masoo dem élection présidentielle. mais lan mooy sa positionnement na rapport à non, par rapport à cet espace là. non loolu am gis nga amul benn positionnement xam nga lan moo leer bokkuma parti au pouvoir ànduma ak ku ànd ak parti au pouvoir bokkuma ci bilan président Macky Sall c'est un bilan boo xam ne jàpp naa ne meloon mu meloon par rapport à ça je de l'autre côté li ci des fii amu fi kenn ku moom électeur damay dem waxtaan ak sénégalais te maa ngi ci. ni ma ko mane ni ko sama parti mane ni ko sama coalition mane ñun depuis plus de six mois ñu ngi tourné yëg-yëg yenn yëg nga ko yenn yëgoo ko ku fi nekk naan Abdourahmane ci télé lay toog bi waxtaan deful liggéey bi yaa ngi nax sa bopp ñu ngi labourer le terrain. mais nan ngay nan ngay enjambé ban avec nan ngay enjambé force yi nga xam ne ñu ngi si seen kanam parce que y a des forces électeurs yooyu est-ce que est-ce que par candidat yooyu dañ leen jël ay chaînes takk leen seen tànk ne leen yéen yéen leen moom. mais may mun a bu doon une élection résultat yi dafay fixe mais alternance du am parce que kon ñii la voté 2012 nga am 60 pour cent gagné mais ñoo lay voté 2012 may mun a loolu c'est élémentaire. donc mu dugal ci débat yooyu. am nga yaakaar li xew li xew mooy ñun dañu ñëw ak offre politique bu bees Abdourahmane Diouf coow lee fi nekk rek ñi di critiquer di critiquer kenn mësuma natt. ma mosoo nattu tamit ma mosoo nangu nattu tamit. waaw mais parce que dama tolluwul woon ci nekk hmm. candidat élection présidentielle mosoo nangu nattu tamit parce que man maa tollu woon ci sama générosité. jàpp ne am na koo xam ne moom ma gën a pare naa ko liggéeyal man maa toll nekk ci parti politique. bokk fa ci ñi di jouer les premiers rôles mosoo ma sax gis ci liste élection législative est-ce que seetlu nga loolu. ah bañ la defulee tamit naqari na la de bëggoon nga bëggoon nga ñu. Ah, investir la waaw. foo yëgee euh, loolu législative 2017 bëggoon nga ñu. investir foo dafa def mbiram. yëgalu la tinuloo yaa ngi woon Genève bëggoon nga ñu investir la. bon déjà nekkuma woon Genève. ma nekkoo fi woon. waaw bëggoon nga ñu investir la. kan moo la bëggoon naa ñu investir lu ñu la investir ñu la. xam nga yëgaluñu la <laughs> ah si. même bu ma dugg ci même bu ma li ngay def nii da ngay dugg ci ay jugement de valeur xam naa tey nag tey moom yaa ngi xool yoon yi mais gisagoo tey moom tey moom maa la xaw a mëne nga xam nga ne mënoo toog naan man bañ may dugal na xariw ma. non may bañ ñuy def élection législative. waaw ah, bëggoon nga ñu investir la déedéet man bañ ñuy def ah. élection législative man maa ngi woon Bruxelles di liggéey. jàpp naa ci lu ma man xam nga lan ngay retenir mais 2014 lan laay waaw maa ngi ciy ñëw maa ah. ngi ciy ñëw. waaw de mosuma nekk candidat élection député. waaw mais dem nga mais dem non mosoo nekk candidat député. voilà léegi mais amoon nga mébét bi dem nga. non bul sama moom xamoo ci dara. sama mébét moom xamoo ci dara. man mësuma dem député élection député. man maa choisi woon sama candidat di ko jàppale. donc man mësuma laaj Sénégalais yi 2014 yi dem naa élection locale. élection locale 2014 xam nga nan la demee j'étais candidat même pas à la ville de Rufisque parce que élection bi meloon ni mu mel mais à la commune de Rufisque Est. donc waa Rufisque Est laa doon waxal waxuma woon sax ak waa ci parce que à l'époque même pour nga dem ville dañ lay voter. sur la base de ligne de vote nga mën dem ville Rufisque c'est un peu compliqué donc pour benn yoon laa dem election Sénégal ne leen man Abdourahmane Diouf maa ngi nii voté leen moom mooy 2014 ça fait 10 ans dem Rufisque Est te Rufisque Est pour te dire seen raisonnement yi des fois ni muy xaw a jaxasoo xam nga Sénégal loolu tam dama ci mere journaliste dañ naan diw gañewul bureau de vote am diw gañewul bureau de vote finalement ça ne veut rien heureusement kon côté boobu du ñu am gis nga gis nga 2014 gañewu ma Rufisque parce que ministre de l' intérieur yi ñoo dàq piéger les candidats ci seen bureau de vote. mais man ah. sama cas bi may dem de wax naa la déjà du woon Rufisque Rufisque est kese la woon donc c' est même pas 1 pour cent de la population sénégalaise mais 2014 le maire bi nga xam ne moo ñu gagné Albendo yi maa ngi koy nuyu mais moo ñu gagné gagné boo xam ne kenn mënu ko laawal daf ñu gagné quoi y' a pas de contestation possible mais maa ko gagné ci bureau de san ne veut rien dire ça veut rien dire ma perte sama bureau de vote moom mu gagné bureau de vote am pourquoi parce que ñoo bokk koñ bi ñoo bokk mbokk yi ñoo bokk am di jàmm yi loolu ça ne veut c'est comme vos histoires de base là démb dégg naa Abdoul Aziz Diop du toujours laay d'accord ak moom mu ne moom base am c'est le Sénégal c'est la nation. a raison c'est la mode. yéen ñëpp da ngeen juum. juumuñu ci ni ngeen di raisonner affaire de base. juumuñu. xam nga lu euh, tax base nattine la. lan la. base natt forme de nattine la. déedéet fan lañ lay natte. ma ne base tey Amadou Ba Amadou Ba loo koy natt Amadou Ba tey. ah nee nañ il est potentiellement <laughs> candidat à l' élection présidentielle. waaw bi passe dafa gagné parcelle. mais il n' était pas candidat. eh il était pas pour, pourquoi il, il n' était pas candidat directement. mais pourquoi pourquoi nga mën a jàpp ne Abdourahmane Diouf élection déglu ma. ma pour déedéet. il faut pas biaiser candidat directement déedéet pourquoi nga jàpp ne Abdourahmane Diouf. élection législative yi passé gagné wul Rufisque te man nekkuma woon candidat département Rufisque. non non waxuma Rufisque de waxuma gagné woo Rufisque de. nekkoo woon candidat département Rufisque. du tout waxuma j'ai jamais dit ça. ma ne non li ma la bëgg a wan. mooy ay histoire de base yow da nga yow da nga ma ne attends. histoire de base comparaison pour comparaison. Mhm. yow da dem Rufisque local nga Rufisque Est. Rufisque Est. nga nga ma def fa un excellent ah. résultat. mais ki nga et puis je complète je complète. Ah. gis nga kat 2014 boobu. Sénégalais yi xamuñu ko est-ce que tu sais que de l'histoire politique du Sénégal xaw ma ñaata la moo tax bëgguma joxe chiffre. je fais partie des rares 2014 dañ ma votal dañu ma fal ma nekk conseiller municipal Rufisque Est nekk conseiller ville nekk conseiller départemental. c'est rare. mais mais pas dire unique non dama bëgg nit ñi xam que ne j'ai eu j'ai xaaral loolu mooy résultat bi nga xam ne xam nga da ngay comparer la seule fois ma waxtaan ak waa Rufisque Est ñu jox ma loolu ak sénégalais léegi nag. tey pour la première fois la jàkkaarloo ak sénégalais di wut seen résultat mais mais tu tu as fait et je compte gagner bu soobee yàlla mhm. da Ba mi ngay wax. waaw 2016. waaw moo porté liste de Dakar. xaaral xaaral xaaral bu xaaral yow yaa indi kan comparaison ay nawetaanu daaw jéeg waxuma loolu xaaral xaaral non non non. non xam euh, nga 2016 non xam nga dafa porté liste Dakar gagné 2017 mu jiite liste Dakar législative. waaw dama ni la gagné 2019 mu jiite Dakaru gagné. dama ni la 2022 il n'était pas directement. candidat man bëgguma dugg ci débat yooyu. yaa indi comparaison parce que parce que c'est pas. tu vois que la comparaison ne tient pas. non elle tient c'est pas destiné elle ne tient pas c'est pas destiné à Amadou Ba xam nga lan laa bëgg a wax man tey je suis candidat à l'élection présidentielle. Amadou Ba fii ak suba walla ginnaaw suba nee nañ mën na nekk candidat APR. machine. waa xaaral ba ma ñëw. Idrissa Seck a une machine. a une machine. Pastef taxaw Dakar. vous n'avez ba ma ñëw dama ni la xam nga la laa bëgg ngeen wax ko ngeen xam ko. dans ce pays on a toujours été dirigé par des minorités xam nga fii lan mooy la vraie constante de la vie politique au Sénégal c'est la puissance du décret présidentiel c'est le décret ki fait c'est le décret ki défait. tey nee nga Amadou Ba mën na nekk candidat à l' élection présidentielle gañewul fa mu dëkk élection yi passé nee nga Boun Abdallah Dionne mais gañew fa nee nga Boun Abdallah mu mën na nekk président même chose ak moitié gouvernement bi tey boo leen jëlee te ñoom ñooy diriger Sénégal kenn gañew ci fa nga dëkk donc ces histoires de base la il faut pas biaiser mais, mais... et je termine par une petite anecdote qui me tient à cœur c'est une histoire personnelle mais rapidement man maay déterminer nag sama sama <laughs> taux de wax rek voilà Maymuna gis nga Sénégal élection présidentielle tu peux tu peux ne gagner nulle part maanaam gagné woo fenn nga gagné nekk président sama histoire personnelle laa ko jëlee j'aime à raconter ça parce que daf ma aidé dans ma vie en matière de stratégie gis nga bi ma amee entré en sixième dem sixième lycée Ablaye Sadji temps yooyu tout le département de Rufisque benn lycée boobu rek moo fa am waa kam waa Yène waa Toubab Dialaw waa mbaaw ñëpp fa la ñuy ñëw donc les meilleurs ñoo fa doon nekk ñu dem bon yàlla dimbali woon na ma am naa benn niveau surtout ay français ay rédaction ay dictée ndax xam nga la la ma yàlla natoo année boobu matière bu génnee résultat premier semestre rek jëluma paie deuxième troisième quatrième cinquième bi ñu paree composition yi ma gis résultat yi j'étais tellement déçu parce que nag tàmmoon naa xawoon naa tàmm jël paie mais ma gis amul benn matière du benn matière rek ci classe bi boo xam ne nee nañ Abdourahmane Diouf moo jël ma koy misère affaire bi metti ma ñu teg ci quelques jours. bulletin de note premier semestre bi génnee qui est le premier de la classe Abdourahmane Diouf. et à l'échelle d'une présidentielle. mais à l'échelle d'une présidentielle ça se traduit comment? à l'échelle d'une présidentielle. Mm-hmm. mën nga bañ a gagné Dakar nga jël deuxième jël troisième mën nga bañ a gagné Tëngéej mën nga bañ a nekk fenn paie résultat yi génne yaay paie. mën nga bañ a am message boobu laay partagé parce que man daf ma aidé da ni may définir samay stratégie dans ma vie. tu peux ne pas être premier mais bu ñu boolee yëpp yow yaay nekk bu ñu additionné donc tey te loolu message boobu sama mbokk waa c'est une forme de représentativité mais c'est une forme une moi je sais que dañ ma boole sur les candidats les plus sympathiques et les candidats qui yàlla le plus de sympathisants waaye nag man dofuma de dofuma de sympathisant maa fi ëpp sympathisant waaye waaye nekk bu ñu ay électeurs <laughs> loolu xam naa ko léegi sama sympathisant yooyu moom laa nekk nag di liggéey di leen di rencontrer pour ñoom ñu nekk ay électeurs